mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu ñu ngi euh, ziar ñëpp di leen dalal jàmm euh, ci seen site officiel senego.com seen kër la xam ngeen ko léegi one est en direct ci site officiel bi mais en même temps tamit ñu ñuy seetaan ci yeneen plateforme yi muy euh, Facebook Twitter Instagram ak YouTube bi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu Sénégal yi nga xam ñoo nekk fi biir Sénégal ak bitim réew yi ñi ñuy seetaan bitim réew ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax. surtout États-Unis ak France suñu gars yi fa nekk ziar nañ leen bu baax a baax tey ñu ngi am benn invité boo xamante ni moom ngeen jàkkaar lool kenn dootu ko présenté ti euh, Lamine Ndiaye ñii tonton Lamine Ndiaye ñii per Lamine Ndiaye euh, artiste comédien cinéaste euh, jiitu xale yi lu bëri bari nekk léegi un professeur ci métier bi man duma sori ci nuyoo bi ma bàyyi la rek nga nuyoo ak ñi seetaan en direct ci Sénégal. jërëjëf Pape Maguette maa ngi ñii di ko wax contentement mm. te contentement booy wax wolof euh, je crois que waruloo jaar ci contentement mm. war nga doon wax rek ne mbégte maa ngi am mm. mbégte di jàkkaarloog euh, képp koo xam ne nii yaa ngi xool fi mu nekk euh, télévision bi nga xam ne nii ràññeeku la ci ëttub télévision yi mm-hmm. mu doon it xam ne nii buñ fi jaaralee nuyoo bi fàttewuñu kenn suñ mënoon tey kenn ku nekk ñu jaar sa tur lim la. dinañ ko def waaye nag comme nit ñi bari nañ tuwaat fukkal macha allah yal na xe yàlla xeeb dolli. Eh, yal na yàlla yeggale nuyoo bi ci seen biir xol ak xel ak xalaat ndax nit ki kat. xel ak xalaat la xol ci lay war a root. ñoo ngi leen di bëggee eh, di leen wu nag ci lépp loo xam ne nii ndob eh, ndob la. yàlla di leen ñaanal yàlla. Euh, lépp suñu borom defar ko ndax lépp moo ma mm-hmm. te lépp lu am rek moo euh, moo ci taxaw mm-hmm. lépp lu amul it moo ci taxaw mm-hmm. euh, dafa dénk nag nit ki mu muñ parce que muñ moom ci àddina lañ ko fekk mais dafa ànd ak li tubaab tuddee la patience la fontaine na ko la patience et la longueur de temps font plus que force ni que rage naa leen nuyoo bi jërëjëfati ba ci kanam ñu dellu siwaat ñu dugg ci waxtaan wi léegi. jërëjëf jërëjëf euh, tonton Lamine Ndiaye euh, kon li ñuy njëkk a tàmbali rek gannaaw nuyoo boobu noonu xam naa ne ñëpp jot nañ si euh, ci jàmm ak salaam li ñuy commencé rek an laay wax professeur ou bien ma ni l' artiste. balaa wax loolu Pape Maguette hmm. dama lay ma lay dagg parce hmm. que ñoo ngi jàkkaarloog nit ñi te ma yaakaar ni niñ ma gisee nii gis sikkim bu ñuul. Hmm. dañuy xaw a jaaxle. waaye nag euh, benn film la bu mooy nekk di ko jouer ma war ci gën a féete ndaw mhm. moo tax euh, ñoom ñoo ñuulal karaw gi nii mhm. waaye karaw gi dafa weex tàll dafa weex euh, waaw bu ñu génnee nag ci loolu mhm. ñu delloowaat buum ci mboñ mboñ ga rek aja li ma lay laaj l'artiste le professeur lan mooy waral longévité ci scène bi maanaam lan moo lan moo indi Euh, macha allah li nga yàgg ci scène bi ñu lay seetaan ngay jouer yeneen i scène théâtre téléfilm ba tey jile yaa ngi ci toujours style ba nga amoon ma nga ca bu fekkee ne am na yoo xam ne day soppeeku euh, ci yenn euh, séquence yi ngay jouer waaw bu duggee ba ci biir yaakaar naa ni coppeeku boobu dana lim boppam. Mhm. dafa nekk ni rek nit ki bu nekkee ci liggéey bu mu mënti doon. Mhm. mu ñu ci li tubaab tuddee éducation. Mm. yaakaar naa ni dana dana wéy wéy wéy mu koy gunge euh, parce que lépp nga ci ndoorteel mm-hmm. ba ay jamono yi jamono yi jamono mm-hmm. saa yu fëggee xalaat bi xel mi rek mm-hmm. euh, mu daal di dikkaat loolu nag li ko indi du dara dama ni yar ak tekk ak tey te tubaab dafa ni la patience et la longueur de temps font plus que force ni que rage euh, muñ ba lépp a xew ndax yàlla dong mooy xewal Euh, suñu jàmm mi ngi nekk ci xewal boobu mu lay xewal nga ànd teg yar ak teggiin ak teg teey pour déglu pour tamit jox nit ñi seen wàccuwaay ndax yàlla li mu sàkk mu gënal ko ci àddina nit ñi la dama naan sax mooy premier mhm. kon nag respecté nit ñi euh, tegu ci yar ak teggin am pastéef ak dogute ci li may def euh, ku ma xam xam ni xel nii Pastef ak dogute dañ ma gunge ci sama àddina euh, siiw moom mm, ñàkk wéradil sama bopp bien au contraire mhm. métier la boo xam ne pour nga siiw lu gaaw la mhm. euh, waaye tekk teey bi bi ma junj léegi mhm. mooy indi mët gi parce que mët aussi euh, dafa bokk ci liggéey bi mët goo xam ne du lu yóbbu fenn du la këf du la jox yenn yoo xam ne nii nit ñi buñ la gisee daan na cem loolu ñëpp ko war a moytu képp kuy liggéey ci liggéey boo xam ne mii dangay feeñ fës ma yaakaar ni rekk ni euh, yaru boobu moo lay gunge sa àdduna ba foo dem xaj fa hmm. koo toogalit mu xam ne yow mët nga li nga doon hmm. te it sopp nañ la ci sa xel sa xalaat ak sa xol hmm. yëpp parce que xel ak xalaat ni ma leen ko waxee junj ko ci njaal benn teen lañu ñu xool ci la war a root nit ki nag fu mu nampee rek mooy njombaxtalam euh, soo amee ay parent yoo xam ne ni day gunge tamit ci sa yar ak tekk ak tey waroo ko fàtte mukk mukk mukk euh, daayiman dappat euh, day gunge ci sa dund euh, wane la wane goo xam ne nii jarul sax ngay wax sa bopp wala leneen ak yooyu mais dañ naan kii de ca kër ga mu yaroo kër bu baax la waaw lu baax moom rek ci njoboxtal ga la jóge noonu lay continuer loolu moo lay gunge alors tey bu ñu passé si longévité boobu ak yar boobu nga wax muy éducation de base boobu lu am solo la dañ koy wax waaye nit ñi parfois dañ koy euh, xaw a di fàtte mais tonton Lamine Ndiaye lan mooy différence su téléfilm théâtre ak série waaw loolu nit ñaa ngi koy wax di ci wérante parce que ñoom ci télévision bi lu ñu gis rek dañ naan théâtre hors mhm. loolu mhm. euh, mbir mi dafa nekk ni théâtre dafa am parce que mhm. théâtre ñoo ngi koy def sur scène mu am décor boo xam ni ca ngay dugg wane la nga xam ni nii mooy œuvre bi œuvre bi nag mën na nekk euh, dramatique mhm. mën na nekk euh, comédie mën na nekk euh, tragédie mhm. wala mu nekk mélodrame mhm. yooyu yëpp dafa am tekkiin luñ ci dugg it ñun ba ñuy door théâtre lañ def maanaam captation lañ ko def théâtre sur scène Euh, dañ doon daaj décor bi suba si ngoon si ñu ñëw jouer ci biir décor boobu kooku lu ñu tuddee télévision bu ñëwee filmer ko dafa ñëw capter les images ñu tuddee ko captation euh, mu am leneen doo xam ne nii dramatique lañ ko doon wax mais dramatique li mu tekki mooy œuvre bi bi nga xam ne nii dañ koy jouer euh, c'est une œuvre dramatique loolu la mais en réalité captation la tudd suñ ñëwee nag jéggi télévision ba naan télé téléfilm. téléfilm euh, ñoo ngi koy joué ci plateau. plateau moom décor naturel la. décor naturel boobu moo tax ñu naan téléfilm maanaam fu mel ni film daal lañ koy joué. joué ko film nag mooy li nga xam ni nii ay nataal la yoo xam ne yu bari ñu takkale ko takkale ko takkale ko ba mu def euh, histoire bi nga xam ne nii yaa ngi koy junj. ngir misaal ko nit ñi war jëlee dara. Mm-hmm. loo xam ne day indi njëriñ. Euh, loolu nag sa dépend ci culture bi ngay jël am na ñoo xam ne dañuy jéggaane am ci ñoo xam ne nii ñu ngi des ci seen culture. Mm-hmm. Euh, seen xar baax am ci ñi ñi jéggaane nag dañuy ñëw indi loo xam ne nii nit ñi dañu yaakaar ni lu bees la indi waaye déedéet indiwuñu lu bees ñoom kay ñoo tànn tuddee ko seen style bopp. maanaam bëgg a beesal seen bopp bëgg a mm. daal wéy ci loo xam ne nii xëy na day indi lu yees ci biir ëtt bi waaw mm. ah, loolu nag dañ ci moytu bu baax a baax parce que nit ki kat bu jéggee xar baaxam jéggaani xar baaxu keneen ànd lay indi ànd boobu yàlla na ci xej mm-hmm. bu ci xejul nag moo tax muy indi tooxi doona yoo xam ne nii nit ki nga xam ne toog nañ di ko seetaan day mujjee rek daal lii daal rëccu naa koy wax ci boppam ne rëccu naa li mu ko doon xool parce que jàngaluma loo xam ne nii man maa ngi ko eh, maa ngi koy gis ci sama xar eh, kon nag dafa nekk loo xam ne dañ ko ni waaye ca la ñu indi lan lañ mu ci bëgg a jég eh, jàngal loolu dafa am solo moo tax yem ci sa buntu kër bu baax la parce que ak fu ñu mën a junjee xar baaxu nit ñun am nañ lu ñu mel am na nuñ koy gisee. nuñ mhm. koy wuyoo. nuñ mhm. koy noyee ba ci mhm. lekkin sax dafay wuute. ba ci naan yi nga xam ni moo gën a oyof ci nit. dafay wuute. Euh, kon nag yooyu yëpp euh, daal euh, dafa mel ni booy dugg daal duggal sa ànd te bàyyi ànd ak jàmbur. voilà nekkul ne sax. àndu jàmbur. parce que Senghor mooy fàttaliku loo xam ne kii nag moom dafa ni loo jéggaane jéggaane ci àndu jàmbur. jël ca la nga xam ni mooy baax. mooy sa cosaan maanaam ku ko ku ko gis mën koo seetaan. Mm-hmm. ku ko dégg it mën koo nangu. Mm-hmm. waaw ku koy seetaan nit mu mën laa jëriñ. Mm-hmm. Euh, waaye terewul nga euh, xas sa bos. wala nga xas sa bopp yaakaar ni moo ko dàq. wala loolu nga indi mooy dàq li nga xam ne moom nga moom. nit ki nag mënul wuyu lu mooy ci turam. wuyu sa tur yaakaar naa ni li may bëgg a wax loolu firi ko. ah. Mm-hmm. Euh, ça dépend nag ci déggin wi. Mm-hmm. waaye ñu ko buggee yit ñu ci duggee xuus ca biir. Mm-hmm. ma toogaat waxaat ko rek ci kàllaama bu gën a yiw. danañ rafet danañ ci <laughs> xuus danañ ci xuus mais euh, mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan actuellement. Euh, émission bi dañ koy partagé ak yéen on a 40 minutes yoo xamante ni avec le professeur suñu papa mu am lu bëri lu ñuy wax benn jàngat ci li nga xamante ni moom la ñuy dund actuellement ak la ñu passé. Euh, xëy na ñun sax fekkewuñu lu bëri euh, kon seen émission bi man la am na ay question am naa ay laaj yu may laaj waaye tamit euh, dañ leen ko gën a baaxee yéen ñi nga xamante ni amu leen accès toog ak moom si émission bi ngeen bokk ku mel ni ki Sakoura Jean Badiane Sire nee na votre génération yàqu fi dara ñu bees yi ñoo ñu sonal loolu di leen si ñëw Cheikh Tidiane Kandé mu ne Lamine un talent pur Cheikh Tidiane Kandé kooku c'est un collègue c'est nu mu c'est notre rédacteur en chef adjoint il mmh. suit euh, l'émission actuellement mm-hmm. euh, Cheikh tijaan Kandé merci beaucoup Red Chef <laughs> jaajëf <laughs> kon euh, waaw foofu noonu nga waxee noonu toj nga li nga xam moom mooy téléfilm théâtre ak série ba lu nekk ci biir ak jéggaani bi ak suñu cosaanu bopp ak li ngay jëlee bitim réew war ko boole ci li ngay def na doon loo xam ni lu baax la waaye tamit sa bos bu ko fàtte mukk bu ko sànni loolu c'est intéressant mm-hmm. mais tey bu ñu gisee ne série yi téléfilm yi théâtre yi dañuy dem a benn instant sax ñu bëri dañuy jaxasoo série da nga koy gis télé yi da ngay gis théâtre da ngay gis téléfilm ci internet bi ba ci télé bi léegi ni mu bëree noonu law noonu bari lool ba dootoo xam sax euh, comme sénégalais li ñuy wax yaay choisir yaay choisir yow booy seetaan ku nekk am na bu muy seetaan ku nekk am na bu ñuy bu bu muy suivre mais ni mu bëree noonu noonu tey jàngat bi tey boo ko doon def lan la nouvelle technologie bi la wala boog ouverture dafa gën a am wala nangam sangam naka nga koy jàngatee. dafa am ay ponk yu bari yu mu dajale. Mhm. yoo xam ne nii moo ci yóbbu nit ñi. Mhm. Euh, ñenn ñi nga xam ne toog nañ ay euh, ati at liggéeyuñu. Mhm. gis ni ñu mel ni euh, nekk ci liggéey ba ñu ngi ci am xaalis. xaalis ba mën na ko ci yóbbu. am na ñoo xam ne nii ñoom du xaalis bi mais nañu siiw rek. dina leen jaral lu ne lu leen ca sante nag pour ñu def ko ñu def ko waaw du ñu bàyyi dara boo leen laajee sax pour làqatu ci la ñuy def dañ naan moom a neex yoonu kenn nekku ci jamonoy buzz la ko waaw jamonoy buzz te buzz nag bu na bësul du la ci lenn dugal sa bopp ci loo xam ne nii da ngay wàcc sa ànd ba mu jar laa def yenn yoo xam ne nii doo xalaat ëllëg ndax du añ du reer waaye lu ma ca sedd la dugg ci la nga moom moo gën fuuf dugg ca la nga xam ne nii maîtriser nga ko maanaam nga téye ko moom ko. ba mu wow koŋ ba nga xam li nga ciy def ak loo ci dul def. dafa wuute ki nga xam ne nii bu ñëw rek nee ne comme ñëpp dañuy sàllar ñu ko ngir wut xaalis. naa sàllar ko ni moom. man sénégalais laa dàquñ ma wax. dàquñ ma sàllar ko kon ma def ko noonu rek. ñu tuddee ma artiste di ko mbubboo te fekk yow la mu laaj. jaaroo ci hmm. jàngoo ko benn hmm. ñàkk jàng bi nag li muy indi tooxi doonu yu rëy hmm. parce que jàng day indi mët ci nit jàng day indi euh, dimension tollin ci nit jàng day tax nga gën a am lu leer ci lii nga xam ni ni bëgg nga ko def nan la fan la wan la yoon woo xam ne nii boo ca jaaree mhm. yaakaar naa ni li ma laaj sànq ci njëlbéenu wax ji mhm. mooy noo def ba yàgg ci loolu mooy yar googu ma la ci wax njàng moo gis bu yarul nit da ko yàq mhm. waaw njàng dafa am njëriñ ci nit njàng dafa indi xel mu yaatoo yaatoo bu ubbeekoo ndax nit ki moom xel la ak xalaat te dañ ne xel ak xalaat teen dañu xool ci lay root da xol di nangu ba mu jaral la def yenn yi rikk waay da dellu ginnaaw xool ba xam ndax loolu du la topp sa euh, àddina wala boo ci duggee it nga mën simeeku bu jeexee waaye doo ñëw dugg ci mbubbu lajjoor bëgg génn ci mbedd mi continuer di def lajjoor wala nekk lajjoor non non mhm. yow interprétation rek nga ci am mhm. donc def nga ko pare nga ci pare nga mhm. dafa am nag aussi tamit yoon way jaar pour simmeeku ci mais léeg-léeg nga def benn affaire boo xam ne da lay topp daay man dappat sa àdduna mhm. dootoo ko mën a simmi mukk parce que day dem ba wow ci sa yaram wow ci sa buy wow ci sa yaram du mhm. yaram bi lay wow mhm. mais xel mi ak xalaat bi ca lay wow ba nga xam ne sa xol da koy nangu ba dootu ko mën a euh, euh, dootul mën a def leneen loo xam ne nii wala beneen mbubb boo xam ne dañ la ko laaj kon nit ki ca la mu ne aussi tamit laaj na mu am bunt yu bari yoo xam ne nii moo koy permettre mu am euh, jéego yoo xam ne dañ ko def ci liggéey ba liggéey bi nga xam ni moom lañu nekk. parce que mm. liggéeyu comédien loolu la. Mm. liggéeyu acteur aussi tamit dafa am différence. acteur beek comédien comédien bi dafa am différence. Mm. parce que ñoo ngi dégg acteur jaawale kook comédien ñoo ngi dégg comédien jaawale kook acteur. dem na ba ci law na ba ci bouffon. bouffon waaw. <laughs> léegi léegi lan lan mooy comédien comédien mooy kii reetaan loo wala. déedéet. lan mooy comédien. ñu bari dañuy dégg comédien comédie bi ñu dégg. ci biir comédie mu nax leen. Mm-hmm. te œuvre bi mooy nekk une œuvre comique. mën na bañ a reeloo walla léeg mu reeloo sax. Mhm. Euh, bañ a reeloo bi sax moo gën a wékku encore. ci œuvre bi mu nekk une œuvre comique. Mhm. Ah, une œuvre comique nag soo déggee comi comi comédien du mhm. kuy reeloo rek. yemul ci loolu. pàcc la ci métier bi. mën nga nekk dramaturge mën nga nekk euh, aussi. ko xam ne nii tragédien la mm. euh, loo xam ne nii histoire ku ku dee mm. tragédie la mm. euh, nit ki mën na ko jouer euh, en ce kenn du ko wax comédie dañ dañuy wax naan une tragédie bu may jël ci suñu classique yi suñu classique yi mooy ay Buurba Jolof ay Samba Lawbe yooyu yëpp seen histoire mm-hmm. ay Alburi yooyu yëpp la Joor Buur waaw am na Buur Siin Kumba Ndoffin mm. mm-hmm. am na ci yoo xam ne nii dee rek lay exprimer boo ko mm. seetloo mm. la plupart du temps mais nag am na njàng lu rëy maanaam ay valeur yoo xam ne nii moo indi loolu mm-hmm. mën na doon bañkat ba xëy ci dee mm-hmm. euh, mën na doon koo xam ne nii euh, li ko tubaab yi doon euh, soññ ak di ko xoqatal ak yooyu mu nekk koo xam ne ku wow le bopp lay doon maanaam ku dëgër bopp ba nga xam ni nii mm-hmm. yooyu du ko yëngal mm-hmm. mu nekk koo xam ne borom fit la li mm-hmm. mu jàmbaare njàmbaar la boo xam ni du nangu ku nooteel par exemple yu mel noonu njàngat bu rëy mi ngi ci te yaakaar naa ni euh, war nañoo dem ba dugg ci yooyu ndax ci yooyu moom ñoo ko moom muy suñu classique yi waaye nag bu ñu jéggaanee classique gu jàmbur. day doon beneen affaire. Mm-hmm. lu mel ni ay Corneille. Mm-hmm. ay euh, euh, le Cid bi ngay dégg nii Corneille sax moo ko bind. Mm-hmm. Euh, am na tamit yeneen auteurs yoo xam ne nii. man dama gis benn école boo xam ne nii. léeg ñu dugg ci classique gu tubaab yi. mais ñoom lañ ko jëlee ñàngat woo ñuy am ci loolu. parce que le courage l'éducation yooyu lay tracé. fi ngay jaar ba am éducation bu baax euh, loolu lay tracé man damay suivre émission boo xam ne nii ci benn école la alors ñu koy def ànd ak seeni professeur élèves yi seen bopp ñooy jël seen euh, euh, maanaam pastif ak seen dogute jàng affaire bi ñëw toog ñu filmer leen ñu koy wax xam nga loolu am na njëriñ ci mm-hmm. adolescent yi mm-hmm. nekkul ne ñiy seetaan ñëpp mm-hmm. ñoo yem ay ay mm. at am na mm. ci ay jeunes am na ci ay adolescents am na mm. ci yoo xam ne c'est des mères de famille des pères de famille donc ñooñu ñëpp ñoo constituer société bi booy liggéey nag ngir société bi dangay xam ci lu muy wuyoo parce que nit na ko fekk ci la mu gën a bëgg nga won ko ci la xam ne nii mooy lorangeem mm-hmm. génneel ko ci la nga xam ne nii mm-hmm. njëriñ lay doon ci moom mm-hmm. euh, wa ilaa mu safaanoolu njëriñ boobu bu ko defee bu ëllëgee mu mën koo moytu donc loolu euh, dafa bokk ci li nga xam ne nii ñun suñu Pastef la ak suñu dogute moo ñu mooñ ci biir théâtre bi mm-hmm. parce que théâtre sorewul diine mm-hmm. man méngalewuma leen ndax diine moom ak fuuf mm-hmm. waaye booy laaj nga ni diine li ko tax dikk ci àddina du dara lu mooy jikko doomu aadama eh, ñun bokk li ñuy liggéey ci théâtre bi mooy jikko yooyu lañ bëgg a eh, mu taaru mooy jàngale yeete eh, waaw jubbanti waaw jubbanti éduquer yar waaw loolu yëpp fàttali soññ waaw Euh, am Pastef dogute ak tamit euh, lépp loo xam ni wax nga ko nga di ko respecter surtout loolu dafa am solo voilà léegi léegi Tons euh, explication yu leer la Moussa Diop ñu ngi lay gërëm Euh, Jal Balde ñu ngi lay gërëm euh, Baye Ibrahima Mboup jaajëfal nañ la Moussa Diop jaajëfal nañ la mais dafa am benn internaute boo xam ni kooku damay dugg ci question directement parce que wax nga ci côté interprétation yi maanaam rôle bi nga xam ni tey Lamine Ndiaye dañ ko koy jox mu joué ko. Mm. rôle bi nga xam dañ koy jox saa mu joué ko rôle bi nga xam dañ koy jox euh, keneen ak keneen mu joué ko pot. Euh, wala Marichou joué ko wala keneen ak keneen léegi benn rôle boo xamante ni Abdoul Aziz Ndour def cee dugg dañuy dugg ci sujet bi rapidement. Mhm. après waxaat décortiquer yeneen. Euh, euh, Abdoul Aziz li mu wax mooy lui il n'a pas à donner une leçon mu ne n'est-ce pas lui qui a joué le rôle de prendre des enfants qu'il faut aller vendre muy ci théâtre bi nga xamante ni bokk nga ko ñoom saa neex. Mhm. si xale yi ñu doon jaay. rôle boobu noonu nga joué woon tey anam boobu noonu wala boog interprétation boobu lan la ci askan bi dafa mel ni ki tamit comme li nga wax dañuy dugg ci askan bi nga xamante ni ñoom la ñuy dund ca la ñuy dund am loo xamante ni war nañ ko jubbanti war nañ kee yeete kooku question boobu noonu la posé ci ci participation boobu la def ci Sénégal bi actuellement moom xam nga euh, Pape Maguette mm. yu mel nii mm. euh, déggin yi dañuy wuute waaw parce que lañ doon wone dama yaakaar ni jàng ko bu baax nit ki ci boppam na mu mel noonu lañ doon wane te ñi ma ko laajoon mooy waa Thiès justement rôle la bu buñ ma dénkoon waaw ma ñëw def ko mais mais man ci bi sama dund man nekkuma un donneur de leçon mm-hmm. boo xam ne nii est-ce que dañ ma gis may jaay xale dans ma vie mukk waaw donc kooku moom jeexal na te loolu dañ ko dégg sax ci jamono ji am na ñuy jaay ay xale di leen yóbbu bitim réew di jëriñoo seen alal boobu ñu ci uh-huh. kii uh-huh. eh, ñoo ngi ko dégg fi lu bari uh-huh. du ci Sénégal rek dañ ko dégg mais yàq na daal euh, àddina yàq na te bari na ba nga xam ne nii buñ ko jundul li léeg-léeg doy na borom xel moom defe naa ne interprétation bi mu ci am ah euh, dama koy mooy nit ki Lamine Ndiaye noonu la mel. <laughs> koy nangul. alors que c' est grave ah. c' est c' est grave ah mais mais sax. loolu ko seetaanul théâtre sax dégg nga ko ci rajo yeeg télé yi. waaw mais boo seetaanee ba pare. dafa laaj déggin. waa dangay ngay toj. Mm-hmm. Euh, am na rôle yu gën a grave yooyu. moo def ko fa. Mm-hmm. mais bi mu seetaanee moom ci boppam. leer na mu loolu seet na seetaan na ko. bu fekkee ne mais moom mi tey boo ko romboon nii da lay mere boo ko nuyoo sax du la faale. ah <laughs> loolu am na xam si théâtre la ñuy meree nit. <laughs> loolu ci nit ki la. <laughs> waaye doonul ne. li may noonu laa mel. Mm. te je ne suis pas un donneur de leçons man nekkuma fii di wane ne ni par par force nit ñi doxalee nii uh-huh. waaye loolu nag du rôle boobu hmm. warul ko comprendre yo foofu <laughs> dafa war a jël nii rek ni dañ doon wane nit ku mel noonu <laughs> euh, c'est comme rôle bi mu fi joué euh, góor gu ëmb hmm. mais man dafa ma fekk may ëmb wala góor gu ëmb dafa <laughs> te mosuñoo gis góor gu ëmb kooku bu fekkee ni noonu lay xalaatee man dana doy waar ci man hmm. loolu mënu ko tekkil daal li nga nii voilà léegi léegi léegi ñu ñëw ci beneen euh, loo xamante ni bëgg nañ ko xam. Mm-hmm. mais lan moo tax tey ci rôle yooyu nga xamante ni dañ koy dañ koy jox am na acteur comme ni nga ko waxee. am na mm-hmm. tamit comédien mais pourquoi maintenant ñu constater ne prolifération des acteurs prolifération des des des comédiens nee nañ léegi ku jóg théâtre ku jóg jeu film. loolu lan moo koy indi léegi dañu ne ñu bëri jaaratuñu ci centre socio culturel yi ñu bëri jaaratuñu ci ay ay troupe de théâtre comme bu Ibrahima Mbaye Sopé euh, kaddu maam maa ngi koy nuyu au passage mon moo mon frère Ibrahima Mbaye ak mhm. yeneen ak yeneen centre culturel bay Senghor feneen ak feneen waaw ku yaru ku baax lay mhm. ndeysaan kooku moom c'est un ami kooku mënuñoo wax <laughs> waxam fii euh, sa te yow tamit idolam nga. lu ci ah, bëri daf koy jëlee ci yow. jàng man nag moom waxtaan nañ ci bu baax a baax. Ibrahima Mbaye di nuyu waa waa Rufisque yëpp. te fi mu jàpp foofu la keroog maa ngi mu ne ma damay dem répétition ak gars yi moom ba tey mi ngi dem répétition ak gars yi yor troubam mais noonu di leen ko jàngal mais léegi dañu gis ne lu ci bëri léegi gisatuñu wala bokk ñiy théâtre kenn du leen xam dañuy jékki-jékki rek fël mhm. ñu am buzz bi nag raw bës Lamine Ndiaye raw bës Ibrahima Mbaye Soppe raw bës Saneex loolu lan moo koy indi. yal na leen yàlla yokk ci loolu. amiin bu fekkee ni loolu la ñu yaakaar ni muy théâtre. Hmm. lañ ci dugg daal te yaakaar ko ci yal na leen ko yàlla jox. bu dee lu baax. Hmm. bu dul lu baax nag yal na leen ko yàlla fanqal. fanqal hmm. eh, te muy doon loo xam ne man damay nangu partage ak ñoom. gis nga Pape Maguette. dafa am loo xam ne nii lu am solo la. théâtre boo koy def war na la jàngal lu am solo mm-hmm. maanaam le sens du partage yéene nit ki la nga yéenee sa bopp mm-hmm. bu ko xas bu ko wax parce que aucune œuvre n'est mauvaise mm-hmm. ça dépend am na œuvre yoo xam ne nii mënoo ko def tey mu amul succès amul buzz ñu dem ba ci kanam mu gën raw buzz ci boppam waaw donc aucune œuvre n'est parfaite donc yàlla rekk xam man ñooñu euh, en fait c'est le théâtre ou les téléfilms qui s'épanouissent. Mm-hmm. waaw. ils s'épanouissent waaw waaw. ils s'épanouissent comment. s'épanouissent c'est-à-dire. ci li ñu incarné wala ci li ñu nekk. prolifération nga wax. Mm-hmm. kon donc soo xamee soo demee ba nga xam ne nii. Mm-hmm. la nga la nga bëgg di ko def. ñeneen bëgg leen leen lu ko dafa mel ni làmb ji. ba ña daan bëree démb ak ki démb tey bu ñu toogee ba xool xale yi. gis engouement bi ci am. ñëpp jël y a des mille équipes licenciées moom. Euh, ñëpp jël la bëri bëri bëri. xool licence mm, mm. région boo dem léegi ñoo ngi koy wutal sax fédération. Mm-hmm. waaw kon nag nga war a xam ni ñaan bu nangu la. te ñaan bu nangoo. Mm-hmm. li ci baax kay mooy la ci baax. Mm. je je mm-hmm. nañ ko fexe rek ba jàng ko. jël ci la ci baax mooy li ma wax sànq. nit ki da ko fekk ci li mu gën a bëgg. tànnal ko la ci gën a baax jébbal ko li nga xam ne nii ngëneel lay doon ci moom waaw mais li ci bon mooy nga xalaatee ko defee ko noo xam ne nii peut-être ñàkk jàng bi moo la fay indi walla ñàkk mët bi moo la fay indi wala it ñàkk xam parce que jàng xam moom dafa am ñàkk jàng xamul moom la ñuy wax euh, jàngul tari boo ñàkkee jàng ñu de seetaan rek dañ ne kii jàngul te mu nga bëgg a tari hmm. wala ngay waxtaan ak nit ki waxoo fa dara loo xam ne mën na ci wékku hmm. wala loo lu taxaw loo xam ne nii ko jëriñoo ci biir li nga wax hmm. loolu nag euh, loolu la ñuy wax daal euh, euh, yàq mbir parce que loo xamul bu ci jéem a dugg demal ba xam nga soog cee dugg boo ñëwee ci mbir boo demee kër jàmbur boo fay dugg salaamaaleykum foroxalul gémmiñ mm-hmm. ah, te bokk na ci yar mm-hmm. nga dugg fa ak duggin wu yiw mm-hmm. ànd ak yar ah teggi nag ñoom seen waaye nag dugge fa noo xam ne nii bu ëllëgee danga nga gestu nit bugg koo laaj sax doo ko mën wala doo ko ñeme loolu yëpp dafay dal ñi nga xam ne nii ñëw nañ ci métier bi am na ci ñoo xam ne nii aussi tamit la lañ ci indi mooy siiw siiw nag nasaraan bi dafa ni euh, méfiez-vous de l'œil et de la langue. Mmh. Car plus l'œil admire, plus la langue flatte et vante, et plus le bonheur se fait vulnérable à le venin et s'affaiblit. Hmm. ñu ne moytu leen gët ak làmmiñ hmm. parce que lu gët ne toq làmmiñ dana ko tudd ba mu moytuwul mu laatukaan. Hmm. fii ñu tënk ko ci baatu wolof ba leen cat cat moo tax bës baaxul. bës boobu wuti leneen a ko gën. boo duggee ci métier bi na fekk nga am ci Pastef dogute bëgg ci jëriñu jëriñaale waaw jëriñu jëriñaale partage ko ba nga xam ni day law jëriñu jëriñaale waaw di véhiculer ay message yoo xamante ni yow mën nga ci maanaam nga teg ko daal ci yoon ba nga xam ni ku ko dégg dana ko dana ko dana barkel mhm. ku ko xoolit dana ko nangu mhm. euh, ku la gisit naw la ci da ngay def mhm. waaw loolu moom moo ci nekk mais tey bu ñu gisee ay théâtre yoo xamante ni actuellement lu ci bëri ay jeunes ñoo koy def lu ci bëri ay jeunes yoo xamante ni musu ñoo def théâtre wala boog petit écran bi musu ñu leen xam ci côté boobu noonu musu ñu leen gis ñuy jouer ay ay ay scénario fii ak bitim réew mais da ngay jékki-jékki gis ñu leen ñu tëll te bu ñu tëllee ñoo yenn bës ba. gis nga dinaa la wax leen. waaw ñun ca bañ ciy door. Mhm. visé wuñu woon bës. Mhm. ñun dañ fi fekk siiw mhm. euh, bu ñu ko yàqoon jeunes yooyu duñ ci dugg. dëgg la. Mhm. siiw boobu nag dafa am limite. Mhm. mooy li ma la wax léegi. xam nga ñoo ngi dem bëgg siiw lool seetal ñi jaar ci siiw. seen nekkul nekkin guddul fan. ba ñuy xalaat bës. waaw baaxul de. su guddee fan rek dafa am nag yar ak tekk ak tey. rootiwaat. foog nga doon ko hmm. foog nga nangu di rooti di root bis bu ne di jàng di gëstu waaw ci rootaan boobule hmm. nga am ci lu loo ci jëlee loo xam ne nii doon naan ndox ma ngir bëgg naan rek hmm. ndax bis bu euh, li ñuy wax naan bu ndox ñàkkee bu robinet yu ubbee nga ruus xam lan lu demee noonu dal xam na nu ñu koy waxee mais formulation boobu je l'aime beaucoup parce que da won da lay en cause xam ni ci li nga ne am na seeneen borom yoo xam ne ñi ngi ci. man jeunes yooyu loolu rek laa leen di wax. cest à buleen dara poussé ba ñu dugg ci loo xam ne nii da leen di yàqal ëllëg. bu leen dara poussé ba ñu koy foyee di ko kafe. te lu ci waay di wax war na ko seetlu. war na ci indi njàng bu rëy. parce que théâtre basam am yëpp mooy jàng. xoolal ni muy def écolier bi da ngay nekk ecole yow jaar nga fa. ñu nga jëm xëy ñu ne la tey dañu def lu dul étude de texte. Mm-hmm. étude de texte boo koy def da ngay visiter grammaire bi. Mm-hmm. orthographe. Mm-hmm. conjugaison ak vocabulaire bi. phrase bi ci boppam. di ko tas ba xam di mu ëmb lan la. waxin wi ci la. moo tax booy def théâtre nga jàng la règle des trois P pensée parole et plastique dafa am solo. loolu it wéy na ba nga xam nii booy def film nekk acteur voilà film acteur la koy film acteur moo waaw doonul ne boo nekkee comédien rek. Mhm. obligatoirement tu acteur mën nga nekk comédien mu nga nekk euh, koo xam ne nii théâtre dong moo nekk sa bopp. Mhm. ba soo doon joué film sax da ngay mel ni kuy théâtre généralement ñi nga xam ni ay réalisateur lañu mhm. dañuy daw. ay comédiens yu mel noonu bañ leen dugal ci acting bi. parce que dafa am loo xam ne c'est naturel ci ñoom. voilà moom noonu lañ mel. gis nga nag l'acteur il est beaucoup plus naturel que le comédien. Mm-hmm. le comédien njàng boobu nga xam ne nii qui repose sur la règle des trois P pensée parole et plastique le plastique est mieux joué quand tu es comédien. ok et beaucoup plus joué. dégg nga ba nga xam ni nii dañ naan sax comédien bi dafa ëppal. Mm-hmm. parce que qu'on n'oublie pas que le film tourne en nombre de frames. Mm-hmm. frames moo gën a gaaw seconde. frames waaw. bokkul ak tiercé. Euh, non non frames moo gën a gaaw seconde li gën a gaaw seconde kay euh, euh, naka lay demee frames boo doon xool tey film bi ni muy demee maanaam film bi bu nekkoon kaye mm. page boo ubbi rek frames la xoolal yooyu rek. nombre de pages du quoi. du tic waaw lu luy collé nag ba nga xam ni doo ko ràññee. waaw tey boo nekkoon opérateur di nga xam montage noo koy defee. parce que mm. nombre de frames yooyu moo existé ci film li ma lay wax nii c'est technique. waaw technicien yi seen bopp ñoom xam nañ ko li may wax nii. Mm. donc su fekkee ne woon man jànguma loolu sax wala ma dem di laajte bay xam. Mm. kon duma ci dugg di ko wax. Mm-hmm. parce que nag ci télévision lañ nekk. donc. loolu su ma ci duggee aussi tamit njëriñ la pour ñu xam ni booy def gest ci télévision waru ci ëppal mm-hmm. noo ko articuler rek nombre de frames bi ni mu gaawee noonu lay articuler sa geste mm-hmm. mu mel ni ñu teg fi benn pot nga war koo jël donc suñ ko filmer déjà nombre de frames lay doon mm-hmm. ba bi koy tee di ko jël ba di ko euh, naan loolu yëpp nombre de frames bi et puisque c'est articulé te que frames dafa gaaw alors donc nit ñi dañuy gis nga jël rek naan bu ëppee c'est yow ni nga jëlee moo ëpp <laughs> loolu c'est technique waaw loolu moom c'est c'est technique yi ngay wax nii nii c'est technique donc foofu comédien bi hmm. ñoom réalisateurs yi yenn saa yi noonu lañ koy xalaatee hmm. dañ ni kii ay gestem dafa ëpp noonu lay joué yooyu hmm. ba nga xam bu demee ci casting sax pour ñu jël ko dangay xaw a metti euh, doy waar ñoom dañuy soxla koo xam nii acteur lay doon maanaam koo xam ni ses gest son limités à la rigueur même il a peur de faire de gestes dégg nga donc loolu dafa am solo aussi moo tax ñu wax acteur mu doole ci nag ci acteur boobu nga doon nga jàng loolu ñuy wax la génétique maanaam nga xam sentiment noo koy transformer en émotion waaw parce que c'est un ensemble qui réunit aussi bien le sentiment que l'émotion xam naa loolu tax nga may wax ay affaire professeur mais tollooguma ci tànku professeur <laughs> mais eh, ngir yàlla rek. bàyyi mu nekk eh, professeur nga ci parce que tamit boo ci eh, yàggee. neel rek nitu théâtre bi longévité bi longévité bi. non longévité ci éducation la rek ay frames ak ay yooyu noonu. calcul yeeg technique beeg yooyu loolu. mbirum professeur mais acteur bi xam ko. dafa hmm. baax. waaw léegi léegi bu ñu bu ñu xoolee ci acteur boobu noonu wala bokk ki nga xam moom mooy def théâtre léegi dañuy dañuy découvrir maintenant euh, ci euh, théâtre yi wala bokk si série yi wala bokk ci téléfilm yi nga xamante ni euh, bon seen choix la gars yi bu ñu xalaat rek boobu la mais dañuy gis lu ci bëri dañuy gis ay seen yoo xamante ni. dafay touché nit ki léegi man mii di papa mënuma toog ak sama yaay sama sama sama yaay wala boog mënuma toog ak sama doom di seetaan yenn téléfilm wala boog yenn théâtre yi parce que toujours mbirum dama gars yi baal dañu ci jaar rek mbirum taat lañ ciy wax mbirum nobante ay yenn scène yoo xam ne sax boo ko xoolee ñun buñ ko daan gis lu yàgg da ngay sëgg mais léegi dañ koy seetaan ni publiquement la koy gars yi di defee léegi léegi amatul néegu biir néegu biir léegi la ñuy wane lu ne fàng ngay wax lu ne fàng léegi waaw loolu nag moo doy waar moo jaaxal nit ñi man gaa sañuma leen a xas parce que ci biir mouvance bi laa bokk hmm. mënuma ci génne sama bopp. mais mën nga jàngale mën nga digle. Eh, waa kay li ma leen di nga jooytu. dama ko wax sànq. dama ko junj. nee naa ni nit ki boo jéggaanee mbir rek. Hmm. Eh, mu doy waar. waaw mhm. donc il faut rester dans sa culture. Hmm. terewuma nit koo xam ne nii il a de l'ouverture hmm. mooy Senghor li mu doon wax ah dans votre culture mais ne vous empêchez pas de vous ouvrir ah, yemal ci sa xar baax terewu la nga ubbeeku pour xam keneen ki lan la nekkee ak lu mu koy def bul ko toppandoo ci la mu xam bul toog ci biir àndam parce que xëyoo ca dégg nga yow da nga war a toog ci sa ànd war a toog ci sa xar baax parce que nit ku fàttee xar baax baaxam bu fekkee ni dem nga à l'extérieur ci ngay xam importance su xar baax yooyu parce que ñoom bu ñuy naw nit ki ci ay xar baaxam lañ koy naw c'est dans sa culture léegi mais tubaab yi dañu ñëw ba fii di jàng suñu culture. lan la wut bay jéggaani ci ñoom. lañu tàmm miin ko di ko def. ñun nanguwuñ ko suñu culture suñu culture mayu ñëw ñuy eh, salar ñu ko noonu. maanaam di wane yoo xam ne nii. kenn waaw neexul ci ci ci ci déggin. neexul it ci eh, ci gis-gis. donc yooyu yëpp dañ ko war di ko moytu man daal loolu laa di digal. nit ki da nga toog ci la nga moom. waaw. boo jégganee nag dangay doy waar ci gëtu nit ñi. ci xelu nit ñi ci xalaatu nit ñi. meloo lan lan moo koy indi bëgg siiw wala bokk ñàkk yar si côté éducation lay bokk. bëgg wala nit ki am concept boppam. ci li mu mel ni bëgg mel ni ñeneen ñi nga xam ñoom lay bañ a tudd. rek mhm. da nga yaakaar ni ñooñu lañuy def moo gën li li sa bos. Mhm. wala sa bos moom tànk toogaloo bay toppandoo. tubaab yi ba def ni sa bos du baax kon yow sa bos baaxul. Mhm. non non mhm. toogal ci li nga moom. Mhm. dafa am loo xam ne nii moom la suñu culture nangu. Mhm. buggul nit ki di sàllar ko kon nga bañ a sàllar ñi ko. junj doy na borom xel. ñun loolu lañ mës a li ngay bëgg a wax. ju ko rek si pas ngay développer. boo développé rek tooxi doon na ñëw. mais est que tey euh, dafa am loo wax sànq ci ci ci diggu waxtaan bi. bi ñu commencé. nga ni ñun li ñuy interpréter dañuy dugg ci biir nit ñi. nit ñi ci la ñu nekk ci la ñuy dund ñun moom la ñuy jël fësal ko am luñ ci jàngale mais tey boo xoolee ñoom li ñuy wax naan am na yenn yenn téléfilm yu fi jaar ah, yu fi def ay bës def fi ay coow yu doy waar ay yaramu nee nag ay tëdd ak ay kàddu yoo xam ni kàddu yu doy nit ñëpp di ko seetaan yow boo tooyee sa papa sa yaay di ko seetaan da ngay sax rus mais tey ñu ne euh, dundinu askan bi fi mu toll tey nit ñi la ñuy dund ñun loolu la ñuy wane. nit ñi li ñuy dund moom la ñuy wane mais à quelle fin nit ñi li ñuy dund ci loolu lañ leen di fekk nit ñi li ñuy dund ñun loolu la ñuy téléfilm di ko wane mais est-ce que lépp liy nit ñi di dund war nañ ko di wane ci télévision bi tamit. est-ce que loolu du ñu dem ba mujj yàq ay xale. déggu li may wax. Mhm. dama ni nit ki na toog ci culture am. waaw soo déggee ma wax la loolu culture wanewul ne. Mhm. boo nekkul ci yooyu rek. sa culture. taxu koo kii. dama ni. ca la ngay def. junj doy na borom xel. junj doy na borom waaw kooku moom moo làqar ci lépp. boo ko seetloo. waaw ñun dañu tàmm di junj. parce que xëy bu ñu xelu nit ki. mais boo demee nag daal di sàllar ñu ko wane lépp. c'est à la fois même boo da nga xeeb. Mm-hmm. mi ngi mel nii da nga xeeb xelam. Mm-hmm. te nit ki kenn du ko xeebal xelam. ci li ñu mës a wékku di ci dund. ñun bokk ba ñu commencé di def en 72 ba léegi. Mm-hmm. yaakaar naa ni yu ci ëpp yu ci bari di tax nit ñi daan ko seetaan. nangu toog di ko xool. dañ daan junj rek. li si yees ñoom ñoo koy mottali. ba ci junj boobu sax dem na ba théâtre bi nga xamante ñu bari dañ ko jàpp parfois sax dañ koy xaañ xaanju sama yaay nee na. teen bi gënoon na fee nangam nangam boobu tamit junju la boo xamante nit bu ko dégloo. boo tojee dina xam lan la ñuy wax. exactly ba mu jaral ko mu xaru. waaw mhm. mais mais loolu wax jooju. Mhm. ba mu demee. Mhm. di ko nettali yaayam daf ko junj. te xam na li ñu wax. waaw mu jaral ko mu xaru. teen bi gënoon na fee gën a dee te mu root rootaaleel la rootaaleel dégg nga loolu. junj la lu mel noonu junj la. mais boo duggee ci suñu viatique yu bari. noonu la mel. par exemple suñ nee la bopp bu naree am njëriñ ay nopp yuy dégg lay sax cela ne veut pas dire que ni ay nopp yoo xam ne nii lay dégg lay xam mais junj la. donc junj boobu mën na ñëw a ñëw ñëw ba ubbi xelu nit ki. Hmm. bu doon teyaat tey di ko wékk ci li nga xam ne nii mooy les viatiques. du ñu jum ci leen. duñ leen sax kii parce que viatique yooyu moo doon suñu xarabaax ci leen daan sukkandiku. waxtaan ak yow. ma wax la par exemple temps jamono ji fi tubaab bi nekkee. su jaan mu matt nit. Euh, lu ñu daan def ku jaan matt sam xel dem ci dee ba ngay dund ak ba ngay dee yëpp sam xel dem ci dee. c'est une forme de communication boo xam ni ku ko dégg ci yeneen gox yi day daw ñëw xam ne am na ku jaan matt. Mm-hmm. yenn yenn inspiration télégraphique yi. foofu la jógee. parce sabar nag day waxtaan ak nit. sabar. day waxtaan ak nit. Mhm. waaw te loolu suñu culture la bokk. mais boo ko déggul nañ koy tëggee ba mu mën a wax ak yow noo koy fire doo mhm. ko firi. Mhm. mag mooy toog sa wet. ne sabar gi lu mu wax. man tey am na lu ma jàng ci loolu loo xam ne nii. Euh, maa ngi ko jëlee ci séeréer si mm-hmm. bu ma indiloon ndeer fi ma tëggal lu ko mm-hmm. moom lañ daan tëggal saltige yi mm-hmm. ñoom séeréer waaw waaw damay tëgg sabar nii ngay gis nii sabar boobu waaw benn bàkk la booy defal euh, saltige bi mu war moom it di ci bàkku yëg-yëg ba mu ci am dañ ko junj dañ ko ko junj kon kon lépp daal dañ ko war a di junju junj doy na borom xel. comme ni ni ñuy waxee kàddu yi nañ ko wodd waaw léegi bu ñu demee ba benn moment boo xamante nii léegi maison de production yi bëri nañu mooy ñi nga xamante nii tey ñoom ñooy indi seen matériel créer seen benn film wala boog seen série wala seen benn théâtre wala boog seen téléfilm am nañ ko tuddee ñu dem tey ba nit ñi am fitu di jouer ay seenu pornographie maanaam ay seen yoo xam ne waxante ay waxu sëy ay sëy sax dañ ko ciy wane tey muy doon ay xale yu ndaw yoo xam ne tey ñoo koy joué ba tey le producteur caabi féete na ko ginnaaw même sax ñu ko doon joué ñoom i tamit am na daan bu tegu seen kaw mais tey bu ñu demee ba gis loolu est-ce que par exemple bàyyi ñu jaan bi muy dem ba pare ñu topp ci watat bi wala boog lan moo créé loolu tamit. ba mu xewee wala. ba mu xewee ñu koy def ay cassette yàgg na. ba mu xewee ñu koy def ay cassette. fii ci Sénégal parti Sénégal Sénégal daf ko daan jéggaani. jéggaani voilà. waaw nit ki ci boppam ne naan lay bàyyil di jéggaani. waaw ah. boo jéggaanee mën na laa lor. ok parce que da ngay jéggaani loo xam ni bokkul sa xar baax. Hmm. nga indi xar baaxu keneen bëgg ko dugal ci bopp nit ñi. Hmm. xam nga sénégalais dafa sob de hmm. nature. dégg nga parce que lu mu gis rek dafa naan kii naa ko jéem. découverte découvrir bàyyi nañ ko daan éduquer nga xam ne dañ naan ko royal ci eh, diw. Hmm. doomu diw de ay jikko yu baax la yor hmm. la yor hmm. mu toppandoo kooku c'est-à-dire kii donc toppandoo boobu def ñu moom ba nga xam ne lii boo jéggaanee boo moytuwul nit ñu toppandoo ko donc loolu ngay wax noonu sax fa mu jógee ay nit ko fi indi mais nit ñooñu ko indi ba muy door lañ waroon xam ni bu lawee li ngay wax sànq naan topp ci jaan bi di nekk di wasi ci wati bi waaw <laughs> di dóor <laughs> loolu aussi def ko ñàkk pexe la waaye mënoo ko dab mhm. parce que law na mhm. ba indi saxu ci biir mhm. saxu boobu mooy feeñal loolu moo tax moo dal ñooñu sama mbokk yooyu yal na leen yàlla génn ci loolu nga xam ne nii ñu ngi ci nekk toujours dans le sens du partage nañu ànd ak yërmande te xamal leen ñàkk xam li mu waral dafa bari dunju nga noonu mais ñàkk xam la wala bëgg bës wala am fit am na yoo xamante ni dama naan am fit la sax. man pour parce que nee ñu léegi Sénégal euh, dañ koy wax ci ci partout ci lépp dañ naan boo amul fit doo dem soo amul fit li nga bëgg a def doo ko def. waaw ah, fit gi est-ce que moom mooy ñàkk yar. waaw bokkuñu de. ah kon nag nañ leen wutale te wéy ci loolu wuute googu mm-hmm. yàlla ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. nañu wéy ci loolu fii suñu base culturelle dafa lën lënkaloog wala lëkkaloog diine l'islam. ak diine l'islam wéy ci loolu. ngir yàlla ba nga koy ñaan samay ñoñ samay mbokku artistes yi nañu wéy ci loolu parce que li tax diine kii wax naa ko ci njàll benn jikko nit donc lépp loo xam ni jikko la ñu war cee liggéey forme de communication bu mu mënti doon xam nga li tax théâtre euh, xawa a dangereux parce que c'est un médium de communication boo xam ne loo ci bëgg a wax mën nga ko wax mais boo wekkee ci junj doy na borom xel doo ci réer. li nga bëgg a wax yëpp mën nga yem ci junj foofu limite bi mooy foofu. Hmm. ñu ko wees. est-ce que ñàkkuñu formation ñàkkuñu ay encadreur yu mel ni yéen tamit. mais lépp am na ci am na ñu xam ni nangu ñu laaj parce que dañ daan boo laajee muy titre suñu ko di jaay na xam-xam borom xam-xam la ak yooyu. Hmm. yàlla moomul xam-xam yàlla yàlla li mu def ci xam-xam bu pour ñu ko war a am leer na ñëpp. wala Lamine Ndiaye dafa xeew yi ñu daan joué ak yéeg yi bokkutul. bokkul bokkuñu style nouvelle génération lañ. léegi boo déggee ay kàddoom sax nga xam ne dañu màgget. Euh, noonu la ñu xalaatee. Mhm. non fit gi ngeen am lu ñu am. Mhm. ma di leen ko wax. est-ce que rawoo ñu sax. pire parce que ku juddoo Médina. Mhm. am na loolu làmboo. te waxoo ko nit ñi. <laughs> du yaru yarulu mais xam say limite dafa baax. dégg nga waxuñu rek lu ubbeeku wala lu xew wala bëgg a changer style. doon leneen loo xam ne nii da ngay raw gëtu nit ñi mm. raw seen compréhension seen xel ak seen xalaat mm. bëgg yaakaar nii lii style bu bees la mm-hmm. ban style bu bees àddina ba mu sosoog léegi mm. li fi nekkoon ba léegi mi ngi fi mm-hmm. wuute bi mooy da ngay ñëw indi sa xam-xam yaakaar ni moo gën a bees keneen ñëw indi xam yaakaar ni moo gën a bees mm-hmm. muy law ci noonu boo xoolee ci yëre yi ñuy sol sax bu njëkk bi li tax ñuy wax rétro xam nga xew na même ba ci costume yi ñu sol ay trois boutons quatre boutons ak yooyu deux boutons ak yooyu yëpp dafa xewoon hmm. mais li sax ñu indiwaat ko c'est que dañuy retourner en arrière hmm. la vie n'est qu'un éternel recommencement hmm. et encore c'est important c'est important mais tamit ci théâtre yi ngeen doon jouer jamonoy daaray kocc jamonoy euh, nu mu tuddati daaray kocc ak euh, jamonoy tey mais mhm. bokkutul parce que bii moo ëpp alal léegi. ak nouvelle technologie yi léegi foofu foofu boo fi ay théâtre yoo xam ne comme yow ni ngay def ni toog nii di waxtaan di éduquer di yeete di fàttaliku ay Lat Joor ak ay ndënd yeeg yooyu noonu gars yi duñ la seetaan amul xaalis. tamit est-ce que du euh, question d'argent bi tamit moom moo posé wu. ci xaalis boobu poson la. poson la waaw. bu mu jënd mukk sa xam-xam bu baax. Mhm. bu mu jënd mukk sa nekkin. Mhm. bu mu jënd mukk say xalaat sa xel bu mu jënd sa xol boo nekkee bañkat dëgg xaalis du la eewu maanaam wër la def la ndomb ba nga xam ni xaalis xaalis xaalis rek am na benn penseur bu wax ni mm-hmm. demain le monde sera le monde de l'argent ñu ne tekk mu ne l'argent ñu ne tekk ci mu ne et l'argent waaw mm-hmm. pour këf nit looy def jënd ko ci xaalis waaw jënd nga jomam mm-hmm. jënd nga fitam ngorom jënd nga ngorom cosaanam xalaatam cosaanam yépp nga jënd ko fab ko mm-hmm. dugal ko ci lan ci lu bon mm-hmm. ndax loolu mooy mooy mooy tax wutum alal boobu ñu ñu fàq ñu ñëpp dem fa lislaam sax daf la ko tere donc la lislaam tere ci loolu la ñuy wékku lay dëgg lislaam la lay caaxaan nag bokkul ci l'islam dignité anamu tamit ci loolu waaw mais dignité honneur mhm. fii lañ ko fekk bul nangu mukk ku jënd sa dignité rawatina sa honneur mhm. man de dégg naa man euh, Ibrahima mbay Sopé am na scène yu bari yoo xam yuñ ko ko doon joué loo fay ko ay millions yu bëri ca France da bañ yow tamit xam naa ci dara Ibrahima mbay soppee xam naa ci dara ak ñeneen ak ñeneen ñi ma jot a xam mbook ñoo ñu jot naa waxtaan ak ñoom ci yu bëri yoo xam ne mi ngi daw fii ci biir réew mi nga xam ne ñoom bañ nañ lu bëri alal lañ leen tegal ñu bañ ko Ibrahima mbay soppee xam naa yëg nga boobu bi mu demee France ñu dik ko millions yu bëri pour mu mm. jouer benn scène boo xam ne day am ay fóonanteeg yooyu mu ne mukk du ko def fa la ko ne ñu ko dellu siwaat ci Sénégal mais tey dañoo gis ne jeunesse bi léegi moo xam yemul rek ci théâtre bi mais ci théâtre bi nga nekk mais artiste nga artiste dafa dem ba laal li nga xam ni moom mooy musique bi dafa laal danse bi foofu yi tamit gis nañ fa ay ñoo xamante ni ah, papa war ngaa mën a gën a wax ak ñoom mais est-ce que yéen waru leen di génn di gën di génn di yee xale yi di leen delloo si waat delloo si waat waxuma yar de mais di leen delloo si waat à la raison parce que sànq am na lu nga wax xaalis koy nangu waaw na fekk ñu koy nangu mhm. ba pare rax ci dolli mhm. bañ a jiital xaalis mhm. parce que ñun aussi euh, xëy na sax loolu suñu fot la. Mhm. parce que boo bëggee sa bopp. Mhm. da ngay loo sol dañ koy jéem a toppandoo. Mhm. parce que artiste nga boo génnee ci mbedd bi ñu xool la. na ngay doxee dañ koy waxtaanee na ngay waxee. la nga sol waxi noppi <laughs> euh, na ngay toogee sax yenn saa yi. nit ñi dañ koy bëgg a fekkee. donc euh, actualité ngay doon. nit war na di moytu actualité mhm. dama la junj sànq mhm. ne la méfions-nous de l'œil et la langue ouais. car plus l'œil admire plus la langue flatte et vante et plus le bonheur se fait vulnérable à le venin et s'affaiblit wax nga ko ci olof wax nga ko ci tubaab waaw kay <laughs> kon donc leer na nañ hmm. moom siiw moom boo ko bëggee du la jëriñ ñi faatu ndax siiw bari nañ torop gàtt fan rek ak nekk ci ay tooxi duuna rek waa est-ce que loolu mooy buzz. boo génnee ñu lay joxe ne kii moo doon génne awraam ci mbedd mi. waaw jëkkul rafetul. rafetul wala nga nekk ci biir télévision di wax ay tooxi doona ay saaga tëb di ñal ñal ci kaw nit ñi. ak internet bii nga xam ne dafay des. waaw bu subaa ñu génn ko say seet ñëw ñu génnewaat ko. mais man am na loo xam ne nii nga baal ma de. Mm. foog mu dugg ci. waaw parce que dama ko seetaan ci benn télévision. Mm-hmm. Euh, ñu leen di ay. nit lañu daal ñoo xam ne la gënuñ ci ñoom dama yaakaar ni woo leen yedd leen moo gën. Mm. nga bàyyi leen ñuy def lu leen neex ci télévision bi. Mm-hmm. bay saaga. Mm-hmm. ah nit ñi di leen bindal ay chèques. Mm. Euh, di leen may ay télévision écran plat. ak ay terrain. man fiiruma ci loolu. yàlla yàlla yokk seen wërsëg ba ñu am lu raw loolu. Mm. waaye nag nit ki euh, bu baax moo tax ñu muy muy jëriñ àddina bi. Mm-hmm. lu baax a tax parce que diine loolu la ko sant. waaw boo gisee it loo xam ne nii yàqum réew. Hmm. comme ni sama camarade Seck sama xarit euh, di def. Hmm. te mu nekk Jamra. Hmm. Euh, je la ma Maxtaar mais man maa ngi woon ci biir Jamra Jamra daf ma daan woo. lépp loo xam ne concours poésie boobu ñu daan def. temps bi Latif doon dugg doon dund. Euh, fu ñu ko defee Sorano fii. dañ may woo. que gagné man maay lire poème ba. Latif loolu la bëggee woon moo taxoon ma bokkoon Jamra. Hmm. Euh, loolu nag bokk Jamra boobu aussi dafa wékku ci man parce que man am na loo xam ni moom laa gëm. Hmm. parce que dañ daan ñëw moom maam Maxtaar Latif boobu ngay wax. yëpp Eh, Medina fii. Mhm. Ngéyeen seen kër euh, mhm. nii laa dëkkee woon ak ñooñu. Mhm. jàkkaarloo kër. ñu daan ñëw daan yéen si seen kër euh, tante joojule. ay de si. li may kii nii de defe naa ne moom fàttewu ko. Pape euh, ba ci Latif sax. ñoom benn waar ñu ñëw toute la famille dama leen xamoon. alors doon dugg ci kër ga. di foowoon ak ñoom. Mm. ñu football ci mbedd mi temps boobu ñoo ngi gas kondir yi. Mm. Euh, di ci def euh, les canal yi waaw canalisation bi. Mm. Euh, donc jamono jooju xam nga yàgg na. muy taw taw yu metti yàgg na ndakaaru daan taa taa bu metti moo tax tey su ma déggee ñuy wax mbënd mi si kii may leen yéen gisu leen dara. Mm-hmm. Médina nag moo gën ci quartier yi parce que dañ ko urbaniser comme il le faut. tubaab yi ñoom ñoo ko defar. Mm-hmm. moo tax doo dégg mu ñu naan mm. euh, mbënd am na fi mm. ak loolu mm. loolu wanewul ne maa ngi jaayu ci Médina wala tollee ko fii wala di ko kañ euh, yooyu mais su doon sama sago Sénégal gi yëpp la ñuy defar ba dootul am mbënd fen waaw alors euh, papa xam naa li may li ma lay mujjee laaj bokk na ci ci li ñuy tëjee. Mhm. Euh, tey bu ñu toogee tey sa longévité foog naa ne am na lu bëri loo xam ne waxtaanee nañ ko am na lu bëri loo xam ne junj nañ ko am na lu bëri loo xamante ni def nga ci benn benn benn critique boo xamante nii peut-être mën nañ jàpp ne euh, critique pour mieux fair la. parce que da nga am sa observation boo xam ne da ko war a def. Mm. c'est tout à fait normal boo ci waree da nga ko war a wax boo ci waxul kat deen la joxoñ baaraam parce que pionnier nga papa nga tey it maam nga nijaay nga ci ñenn gi mais tey euh, papa li ma lay laaj mu bokk ci li ñuy tàggatoowee euh, avant ordre national du mérite bi ñu la jox. du lion du lion du lion bi ñu la jox tey lan nga apporté ci biir maîtresse de homme marié bi ñu doon ŋàññ. nan moo la ci dugal ak lan nga ci apporter loo xamante ni xëy na euh, kenn dootu ko xoole yenn bët yi. defe naa ni la vie de couple. Mhm. ak le respect de la femme. Mhm. jox ko cëram ak wàccuwaayam. Mhm. parce que maîtresse d'un homme marié ay couple yu bari la. waaw ku ci nekk ak sa façon. li ngay couple yu bari coow yow sa bos am na coow. waaw biram am na coow. ba nga ëffal biram ak am saa. bosu jaañ am na coow. bosu ku góor kookoo ku xees ki am na coow. Mhm. ñoom daal coow rek. Ah, yow sa bos sax xaw naa ne xaw na saf suukar tuuti. waaw xam nga yëfu mag lañ ko def. <laughs> waaw yëfi mag. waaw sooy bind euh, xam ni ki ngay bindal mag la. Mm-hmm. Mm-hmm. ci mbind ma ngay door di ko respecte ba ci njobbaxtal. ba ci njobbaxtal fa mu yem. Mm-hmm. moom it bu koy interprété na wuyoo loolu. na fekk aussi. mu am mëtaay goo xam ne nii. Hmm. bu duggee ci rôle ba rek. Hmm. saa yu ne tëll nit ñi dañ koy apprécier ndax conduite ba muy am. Hmm. te comme ñun ñoo ngi seetaan. te dañuy seetaan liñ leen di junj ji lañ ko jox. Euh, bu seen xel jiitu mukk ñun suñu tekkin ak suñu gis-gis. parce que bu ñu ko defee rek tooxi doon am. ndax dañuy réer. parce que kuy jund waxtaanam. te xamoo fa muy teree boo ko dégluwul. def benn jugement ci moom. erreur ngay nekk mhm. donc loolu euh, daf ci am njëriñ. Mhm. am na njëriñ ci nekkinu nit. Mhm. nga am sa xarit muy suufu sa jëkkër ak yooyu yëpp. xam nga loolu jëkkul rafetul. jëkkul rafetul. ci ban cadre la koy indi ba muy suufu sa jëkkër. ci diggante yu oyof nii. xam nga fii dañ naan. nit ki bu ko ay sentiment jiitalee rek. soo moytuwul tooxiloon na dal ko. waaw mais lu la sentiment jiital jiital nga am ci yërmande mm. mais dañ ni kéwél bu ci dul foog doo weesu rënd mm-hmm. xam nga yooyu yëpp ci junj la bokk ci junj la bokk dama dul bañ a dugg ci firi ko parce que day gën a gudd waaw mais dama koy tënk ci yooyu junj yi rek mm-hmm. man daal euh, maa ngi ci pour junj yi mm-hmm. wékku nag ci viatique yi ci viatique yi waaw dafa am solo intéressant faut pas ñu ñu ñu ñu fàtte leen parce que loolu mooy ñun ñun mooy ñooy moom ñooy moom Euh, xam naa ne du ñàkk ca kanam kanam kanam bu ñu yàlla mayee dund gu gu gu gu yiw ànd ak teranga hmm. euh, te gudd fan hmm. euh, du ñàkk ñu gëstu loo xam ne nii dana jëm ci viatique yi hmm. proposé ko Sénégalais yi ñu xam li ñu bëgg a wax lan la parce loolu dafa am solo mooy suñu culture ñun dañ loolu loolu dañ ciy ànd. Oh, oh, dañuy denc surprise yu bëri. Mm-hmm. incha allahu rabbi am nañu lu ñuy waaj. Euh, loolu moom dañ koy denc papa. Mm-hmm. Euh, mais mais mais li ma lay bëgg a laaj rek euh, ci li nga xam ni moom mooy li nga xam ni moom raaye guñ la jox est-ce que sa longévité moo la may ordre national du lion bi est-ce que loolu may na la ko. waaw benn côté. longévité bi ak li mu ëmb. benn côté. Mm-hmm. may na ma ko. mais lu jiitu loolu. Mm-hmm. dama dem ba ñuy toog ba Burkina Faso ñu sargal ma fa. Mm-hmm. donc defe naa ni sargal bañ ma fa jox. mooy nit ñi gën siiw ci seen euh, nekk ci aar bi. Mm-hmm. gën siiw ci seen dëkk. gën a siiw ci Afrique. Afrique waxatuma la ak àddina bi. donc su fekkee ni dëkku jàmbur ñoo ñu ràññee noonu. ba élever ñu ci foofu. yaakaar naa ni rawatina fi nga xam ne ñi foofu. la ñu juddoo xam fa suñu baax ak lépp. fekkee jamono nag yu yàgg. Hmm. parce que jamono yi moom xeex ak moom. Hmm. ba léegi defe naa ni boobu nag ci boobu sax encore dañu commencé di théâtre parce que hmm. dañ daan dénoncer. théâtre boobu moo gënoon a engagé. Euh, lépp loo xam ne nii ñaaw teef la ak yooyu. Senghor li mu bañoon mooy euh, multipartisme multipartisme ku ko bañ loo séddoo. nanguloo euh, jox nit ki wàccuwaayam ñun dañ daan xeex loolu euh, ànd ceeg le communisme ak yooyu ay ay rek lañ daan def ci suñu bopp euh, bëgg koo lijjantee suñu dëkk léegi ordre national du lion bi naka lañ la ko joxee waaw kooku yàgg ci liggéey bi nga xam ne nii dañ ci doggu ànd ak Pastef mm. ngir lan dama ko junj sànq nee naa ni l'islam du ko indi du dara lu dul jikko doomu aadama mhm. ñun loolu la moo ñu dugal nag gën ñoo mhm. mooñ ci théâtre bi mhm. ngir jikko yi ñu mën koo rafetal taaral ko euh, wékku toujours ci diine l'islam man du ma sore foofu waaw mu nekk honneur si yow ah. waaw kay ma ngoog euh, gis nga sànq seen rédacteur en ah, chef bi en chef bi du moins nee na carrément que je suis pieux c'est vrai que je me réveille ay trois heures quarante cinq du matin trois heures du matin ci paa waaw waaw yow doo nelaw ak tournage mais man lépp lay boole. boo yeewoo trois heures du matin def. ah mais yàlla moom du ma ko jox ci ay not ci per rek. ci ay wérd waaw waaw di wérd. di hmm. ba fajar. ba fajar ma julli fajar xaar tuuti julli suba. Hmm. soo a tëdd. su ma waree liggéey duma nelaw noonu lay toogee ba wax suba jot. ñu ñëw jël si ma wala ma dem fekk ji ànd ak jël sama taxi dem mhm. waaw dem tournage mhm. suma liggéey la noonu laa ko gisee noonu laa koy jëfee mhm. donc euh, na ma nit ñi bàyyi ci loolu de xool ma ci loolu ñaanal ma ci yàlla bu baax li ñuy def mu am barke parce que man bu amee barke wóor na ni wala kitaabul naa ni seddoo kook sénégalais yi du doonul dara ci man parce que j'ai toujours vécu dans le sens du partage ci ni ma xam loolu mooy sama mbir. merci beaucoup rendez-vous dans 15 jours. incha allah loolu mën naa ko wax incha allah. incha allah tey la lëndi lundi bi di ñëw bi ci topp. Euh, Ablaye dégg nga loola rendez-vous dans quinze jours foog naa ne wax nañ as tuut ñamali lañ doon def mais am na lu ñuy préparé incha allahu rabbi dinañ ko yàq man ak yow mais père bu la kenn këf nag man ak yow 2005 la ba tey li gars yi xamul nag man ak yow 2005 ba tey. man su ma soxlaa sax Marodi day ñàkk. yal na ko yàlla barke Marodi man tey da nga dem tournage. ak mm. Marodi ma ñoom dañoo ñàkk. <laughs> maa ngi leen di ñoom ñëpp waa Marodi ñoom ñëpp di nuyu képp koo xam ni acteur nga comédien. comédien nga. Mhm. Euh, waa téléfilm théâtre ñëpp ñu nekk ci art bi le septième art ah. Mhm. septième bi maa ngi leen nuyu mais particulièrement lool su ma ko waxee damay am ñaari pensée yoo xamante ni mhm. daf may yóbbu ci ñaari nit yooyu. yoo xam ni euh, formé nañ ma tuuti ci wàllu art. kenn ki mooy Omar Sall du G30 Afrique foog naa ne xam nga ko. Omar Sall waaw. waaw Omar maa ngi koy nuyu bu baax a baax grand maa ngi lay ziar ak frère am famille Sall yëpp. keneen ki di Macodou Mbengue nekkoon directeur centre culturel Blaise Senghor te mu génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana ñaar ñooñu génn àddina waaw dama leen di bàyyi xel gisee nañ ci bés bi parce que dañ invité woon mm-hmm. ñu dem foofu mm-hmm. euh, je bu ma juumul géejewaay la mm-hmm. ba ñu jógee géejewaay ñu indil ñu rek ñu yóbbu ñu sax jox nañu paas ñu dellu suñu kër waaw ci lañ géej gisante waxante waa ju baax simple suñu kanam la jëlee oto ñibbi Tëngéej mhm. waaw mhm. Mhm. donc loolu yëpp euh, dafa nekk lu rëy loo xam ne nii ay pàttaliku lay indi ci lu bëree bëri bëri waaw moom euh, frère aussi maa ngi koy nuyu du duma ci taay Ibrahima Mbaye Sopé. frère dundal <laughs> moom waroon na teew mais defe naa lundi bi di ñëw yéen ñaar yéenay bokk plateau bi. incha allah lool laa bëgg te xam naa. tamit ñu war a waxtaanee dañoo yàgg dañoo yàgg ci mbir mi sax. père loo may loo may wax ci ki nga xamante ni moom itamit moo dëddu àdduna bërki Demba Ndiaye Abdou Latif Alioune Badara Cissé le grand médiateur man bokk naa ci ñu ko mujjee gis man ak yow Ablaye ñoo ko mujjee gis ñoo mujjee def ak moom interview. ku yiw mhm. ku jib. Mhm. nit koo xam ni éloquence am dama koy déglu muy wax ma yaakaar ni dafa def théâtre wallaahi il est éloquent. waaw wax ji. wax ji dafa yiw mhm. set. Euh, dundam daal barke la ba mu jeex takk ba pare nag noonu la euh, mhm. parce que man daje neen ndar mhm. waaw mhm. daje ndar dul benn yoon du ñaar yoon euh, la mu xalaatoon pour liggéey ko ndar li mu doon sax médiateur moo ko bloqué wàññi na ko lu bari ci li mu bëggoon a def mu ngi woon ci politique bi il mais politique bu set bu yiw ànd ak barke parce que du wax lenn loo xam ne dëgguwul du wax lenn loo xam ne nii euh, pour jay nit ki la wala leneen moom il a horreur de ça booy ànd ak moom nekk xaritam lu leen def def def politique bu la mënul wax dëgg bàyyi na politique ba wala bàyyi sa parti boobu noonu la meloon suñu président bi actuellement Macky Sall waaw donc ci dëgg boobu yàlla na ko yàlla dëggal dundam foofu. ci kërub dëgg eh, mu gënul ko foofu li mu daan dund fii. amiin yàlla taas ñu ci barkeem parce que it am na barke. dund bu mm. barkeel la. Mm. li bu gënoon a bëgg mooy yiw ak njekk ak teraanga. Mm-hmm. tënku nag ci dëgg ak jub. Mm-hmm. Mm-hmm. bien que mu nekkoon avocat. te avocat dégg liñ ci wax. mais moom àtteem yëpp ci dëgg la koy teg. ak jub surtout. waaw. naqari deret bi ci la. Mhm. parce que jikko avocat bi mhm. daf ko yóbbu ci ay wax yenn saa yi. ak nit bu dëggu sax yenn saa yi xam ni nii. Mhm. vraiment en toute sincérité. bi ngi nekk au palais. di nit. ci ay kiyam yu bari yu ma koy déglu. muy intervenir. ah bu waxee rek nga di gong. ba sorti bi mu mujjee def ba sorti bi mu mujjee def c'était le 7 mars euh, fële ne ca euh, bureau bi muy annoncé. Euh, li nga xam moom mooy retraite am boobu man maa ko jëli woon man ak Ablaye mii tey euh, te télévision yi bëri na ñu ñu koy ñu koy teg temps yi yëpp euh, ci bi mu génnee àdduna man de jour boobu noonu discours am bi comme ni nga wax dafa mel ni ko def théâtre mm-hmm. daf ma daf ma daf ma daf ma frappé mm-hmm. te dafa mel ni ki da lay attiré pour nga déglu ko éloquence da lay téye loolooy éloquence bi un homme mm-hmm. éloquent bu dëggu comme ni mu ko doon waxee te jour boobu wax na dëgg ñu nekk opposition bi wax na dëgg ndaw ñi wax ñu wax na dëgg président de la république moo tax bi mu génnee àdduna dama ne attends mais kii dafa mel ni kii da doon joxe ay digle balaa muy dem. waaw man lool laa jàngat. mbubbu médiateur bi moo koy yóbbu ci loolu. Mhm. doo fekk kenn ci société bi ñëpp ngay waxal. ñëpp la waxal même ba ci kilifa diine yi wax na ak ñoom. kàddoom noonu la. Mhm. président de la république opposition. Mhm. ñëpp la boole ci dëgg rek ak jub. foofu la ko wekk. loolu nag ça veut tout dire. su senegal bi ñëpp doon wéy ci dëgg ak jub mm-hmm. nit du am lu ko naqari mm-hmm. nit du am loo xam ne dana ko xalaatal nit mm-hmm. nit ki tamit du toog bay ñaxtu ñaxtu ñaxtu senegal la gën a delloo ginnaaw ñaxtu bu metti la wax bokk na ci ngëm-ngëm bi buñ ko dëggaloon dëggantaan je crois que dara duñu tiital doo ma dencal thème boobu <laughs> dara du ñu tiital parce que ma wax la leen mm-hmm. gis nga man nit boo nekkee ci benn place yi ŋàññe la du ko def mm-hmm. Mm-hmm. dama xam ni yàllaa ngi lay seetaan ni lay gisee mu ngi lay dégg ci say wax loo ci respecté wul xam ne moom lay lay tontu bi xam ne lépp xam mën lépp ni mu ko fi indee te tudd ko noonu la ko fi mën a jëlee mën na ko faj jëliñ bu rafet. ak jëliñ bu ñaaw. waaw wallaay. nit ku nekk daal ci nguur. Hmm. ñaanal yàlla yàlla bu la fay jëlee it mu jëliñ jëlee la fa ci jëliñ bu rafet. Hmm. yal na ko yàlla defal Sénégal yi nga xam ni bëgg nañ yore nguur yi. Sénégalais yi nga xam ne nii tamit sonn nañ. Hmm. wax dëgg fa yàlla. maa ngi ñaanal ñëpp. yal yàlla def li gën. foofu ci Sénégal. dañ def attention. nga ñaanal artistes yi tamit artistes yu ndaw yi. su ma nee ñëpp rek. man saa yu ma xëyee li may wax li tax may yeewu trois heures quarante cinq du matin. di wér. ba fajar mu julli. su may ñaan ñëpp lay ñaanal. macha allah. billahi wallahi talaahi. rawal loolu boo ko waatee rek. defe naa dog na. yàlla na yàlla nangu ñaan man takk téere xaw ma ko. Mm-hmm. ba maget. Mm-hmm. takk téere xaw ma ko. doo bañ. <laughs> kuy bañ bañ wal man yàlla laa gëm kuy benn benwal kuy takk takkal kuy takk kuy naan naanal kuy benn benwal kuy guuxit guuxal kuy suul suulal waaw kuy suuru it suural man moom maa ngi wékkul ci sama kurus gëm suñu borom trois heures du matin ba fay ñaan trois heures quarante cinq mm-hmm. su bëggee ma wan la sama portable mm-hmm. nga gis ko non man ngay xam naa ko wax la ci gannaaw dëgg moom yàlla na ma ci yàlla eh, tollootuñ fa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. tonton euh, waxtaan bi am na solo lu ci gën a am importance nañ ko tibb tee mhm. euh, li nga xamante ne intéressé wu la yow mii di ñu seetaan d'accord nañ ci parce que li la intéressé ak li la rek ngay xool. loolu moo ñu tax jóg jeex na jubbanti la ak soññante waaye du jàngale du ay leçon yoo xamante ni dañu koy joxe tey Pape Maguette Ba moo doon toog ak papaam tonsam idolam soo conseiller depuis 2005 di koy jaajëfal lu baax a baax di nga ñaanal gudd fan yàlla na nga fi yàgg yàlla nga am gudd fan yàlla na nga am wér jërëjëf yàlla na la suñu borom dégg ci ñaan yi koy ñaan yàlla na ko bokk ak Sénégal yëpp éloquence bi yàlla na ñu ko wàll si éloquence boobu noonu nga xam ne fu ñu waxee nañ ko bokkal Sénégalais yëpp fu ñu waxee ñu roy su ñun fu ñu waxee wala boog fu ñu gisee nit ñi ne ah macha allah kii kat royukaayam fa mu jëlee lii lu baax la loolu la ñuy ñaan ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf on se Ah On se donne rendez-vous quand Tu m'as dit dans 15 jours. Dans 15 jours. Je suis obligé de l'appliquer. À part Marodi Sénégal. <laughs> non, Marodi. jeex na li ma tënkoon ak nag temps yii damay defanteeg Marodi. ah ah bon. temps ah. la utiliser. naa utiliser keneen foofu naa ki utiliser man maa ngi tas Marodi. te comme am na ñu bàyyi. te te ngaa def leneen lu gën tas ko. Eh, xaaral sax ma noppi parce que. suñ borom moo ko tabax de. Ah, en tout daal naa leen utiliser daal ak ñeneen ak ñeneen yëpp. suñu borom ko taw bu ñu leen soxlaa bu ñu bu ñu bu ñu defee lenn kañ ba ñëpp gis leen soxla leen. waaw loolu alhamdulilah macha allah. Eh, waaw kon xam nga lan dañuy ñaan. waaw yal na yàlla sedd yiw ñëpp. amiin defaral ñëpp li gën ci ñoom. amiin yaa rabbi te yàlla wékku ci li nga xam ne nii mooy mbaax. gi mm. gën a baax ci àddina. Mm. defal ko Sénégal li yëpp tout képp ku ubbi sa ligne. Mm. yaa xam. la nga ci dugal. Mm. waaye yal na ko yàlla def muy teraanga joo xam yi yiw lay yokkute suñu biir réew jëriñ ko ba ay doom aussi tamit wékku ci yiw yooyu di ko doxal man loolu rek lay ñaan sénégalais ak métier bu mu mënti doon am na lu ca jeng am na lu ca baax mm-hmm. am na lu ca taxaw lu ci dëgër mm-hmm. ak li nga xam ne nii dafay yaafus mbaa mu yànq mm-hmm. yal na yàlla jubbanti yëpp te feral xol yeeg xel yeeg xalaat yi lépp wëlbati ko baax liy naqar mu teggil ñu ko mbas mi dugg ci réew mi yal na ko fi yàlla génne ci barke muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ñu li gën ci ñun eh, feral ñu bàkkaar yeeg bon bon yeeg ñàkk sutura si ak eh, ñàkk fonk nit ki mm-hmm. eh, yàlla defal daal lu baax ci réew mépp amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf tonton jërëjëf euh, suñu metteur en scène bi nekk ci ginnaaw ah, boo leen loo leen boo loo leen gis fii muy lépp rek si image ak lépp rek moom la metteur en scène bi moo nekk si ginnaaw ñun dañ doon def sur scène nañ doon def nii xam nga. Mhm. Euh, Ablaye moom mooy metteur en scène bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax. Mhm. di joxante rendez-vous dans 15 jours incha allah rabbi ak leneen lu ñu war a waxtaanee mais soppe ñu ngi lay xaar en direct lañ la woowee jaa ngeen jëf yéen ñëpp ñu doon seetaan Sénégal ak bitim réew. mucc ak mucc lay mën naa la jubbanti tuuti rek waaw sur scène boobu nga wax hmm. da nga koy def sur le plateau sur le plateau waaw jeex na kon sur le plateau incha allah rabbi dans quinze jours jaa ngeen jëf <laughs> dans quinze jours